شم أصحاب كسرى غير منصف أعوذ بالله بسم الله ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه الحول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد إن الحمد لله يدرس واسفايري ñew ci njëriñ yi tay taxawaay bu njëkk bi ñuy njëkk am mbokk yi uktub waradallahu lazina kafaru bi hayzihim lam yanaalu xayran wa kafalaahu muminina xitaana wa kana laahu xawiyan azizan moom ngay bind ñetti yoon hmm? ba kii bi saar bi jeex ba saar bi jeex nga wut tóortóoru saq rek loo mën a sëq sa soo ko mënee wër bu mu wër na nga boole ko ah toor toor toor bi rek na nga am tóortóoru poftan rek nga daal di koy booleeg lii képp ku jinne jàpp ku seytaan jàpp ko am gàllankoor ku am cat làmmiñ bët ak lépp lu bon soo ko boolee ak ñetti warada laa su ko sangoy loolu dañ si moom day raxas yaram bu mu set wecc ñetti yoon rek day bu mu set wecc leer na kooku mooy taxawaay bu njëkk bi ñaareelu taxawaay bi taskuru fii da ngay zikkar iza jaa nasrullahi wal fathu waraayta naa see duxuloo ne fii dillaahi afwaajan afwaajan afwaajan nga baamu ko cent soixante quinze cent soixante quinze nga ñëw yaa waliyu yaa latif quatre ah nga yeggali saar bi fasabih bi hamdi rabbika wastaxfir innahu kaana tawaaban nga ñëw indi salaatu ala nabi ku si sax di ko liggéey doo ñàkk dépense doo banque doo yoruma waaw ah. ah, ku si nekk yàlla dina la dimbali incha allah rabbi te bëriwul ku si sax yàlla dina la dimbali cent soixante quinze moo jàpp fidda déedéet soo ne afaajan cent soixante quinze nga doog indi yaa yàlla tiif quatre vingt douze nga doog li fasa bi bi am di rabbika wastaxfiru nga yeggali suratu nasri bi nga indi salaatu ala nabi ku si sax doo banque ah liñ naa waaw sa wërsëg moom di nga si jot incha allah rabbi ñetteelu taxawaay bi da bind li kun bismillahi rahmaani rahim inna haza la risquna ma lahu min nafaadin nga mais léegi juróom-ñaar si juróom-ñaari xobu poftan lañ koy bind da ngay ñaari xobu poftan xob bu si nekk nga bind si kun bismillahi rahmaani rahim inna haza la risquna ma yaa fataahu ngu bi faa bi def sa si biir daal di def fayekoon si juróom-ñaari xobu poftan yi hmm? soo paree ci cuuraayu liban nga koy boole cuuraay lay nekk danga koy weer ba mu woow nga dëbb ko mu nekk sunguf mhm. nga koy boole cuuraayu liban di ko boole di ko suuru ku ko def di nga ubbeeku kii day ubbee nii waaw waaw luy ubbee la dangay ngay ubbeeku ba yëg ko taxawaay bi ma ne uktub basmala da ngay bind basmala bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon comme si nawet lañ jëm léegi nag premier ndoxu nawet nga fexe am si boole kook lii képp ko yéene jàmm ne si naan si. mais amu wis wis wu fi woon temps yii. waaw temps yii lañ la wax xam loolu wis la wax da ne wis. wis ah, bokkul ak taw taw bu mu woon taw na waaw taw bu mu taw na taw boobu lañ soxla. nga nga boole koog bas ma la juróom fukk. Mhm. joxal sa njaboot ñu naan sangu yow nga naan sangu di ngeen mucc si nawet boobu. si luy màttaateeg wàllu feebar yeeg lépp ayu nawet bi yëpp di ngeen si mucc. Ah, fii fii ma ne fii ma ne ma jox ko kii waaw ba mu deex cinquante fois waaw basmala cinquante fois kii moom pour ñi def examen la maa ngi ñëw kii ñi def examen la fa amaa man utiye kitaabu bi yamini moom ngay bindal kii def examen mais si li mu turam nga koy bind kii def examen su ñëwee wax la turam li nga adat ko li mu jàpp nga bind ko si fa amaa man utiye kitaabu bi yamini soo paree mu ut benn big big bi nga jàngal ko si wa saabiquuna saabiquuna cent onze tëj big bi jox ko mu dem defi examen lii nag une semaine la koy sangoo. waaw avant avant avant examen lay sangoo lii une semaine teel tey teel a jeudi. examen nekk jeudi prochain. kon war na ko sangu balaa jeudi prochain di ñëw sept jours yooyu soo paree waaw mu ñu defal ko saabiquuna saabiquuna cent onze si big bi. pour ko ñetti big rek nga defal ko si mu def def examen incha allah yàlla na ko may examen concours bépp concours booy def rek soo ko defee yàlla na si may ndam kii kii pour ñi way tukki yi la képp ka xam ne yaa ngi tukki utal benn xobu dugóor nga bind si wala taqtulu nafsa wala taqtulu nafsa moom ngay bind si xobu dugóor bi gas sa digg kër benn yoon nga koy bind si xob bi gas sa digg kër suul ko fi soo tukkee di nga dellu si waat foo mënti tukki di nga ñëwaat ah, leer na ah. waaw kon waaw kii moom hadis la hadis la an abi hurayrata radiallahu anhu ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iyaakum wa zanna inna zanna akzabul hadisi mu ne an abi hurayrata moom abi hurayrata radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm ana rasulullahi mu ne naka yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dool xéwal ak jàmm mu ne qaala wax na iyaakum moytandiku leen zann ak njort inna na ndax ne njort de ak zabul xadis moo gën a bëri si waxtaan nit ñi seen wax li muy bëri lu si bëri njort njort la néew la li la nit di nett lii dara nga ne ko nii ndax yaa ko fekkee mën a mën a waaw dama dégg rek wala nit ñi wax nañ ma yonent bi nag nee ñu moytu lool parce que loolu en général mën na la jural leneen xam ne parce que lu waaye wax rek su ëllëgee ma di nga ko waxaat kon kooku xadis yàlla na si yàlla def barke allahumma salli ala mawsul bi juudi wal karami leer na foog na waaw ah, kon much.